at mu jot bu ñuy waajal màggal daaru salaam bi soxna Amy Seye day waajal ay bernde yu yaatu yoo xam ne da ko yóbbul sëriñ Cheikh Anta Mbacke loolee defaat na ko ci wàccaayu màggaluk daaru salaam bu atum 2020 bi ànd na ko mbooleem mbokk yi xarit yeeg wëlëre yi ngir bernde yu yaatu yi mu dem jébal ko ki nga xam ne moom moo di sëriñ Cheikh Anta. ci waxoon daaw rek dañ koy yokk waaye duñ ko wàññi hmm. ndax sëy mii daa ñëw ci kër gi rek yokk ko nit ñi sax sëñ Fall lañ ko yokk jumaay ndax daa ñëw tey ba gi nag yokk ko ba mel ni sooroolu Touba bi ñëw nag li bàyyi borom kër gi bëggoon rek mu nekk si ndax bàyyi borom kër gi moom weeru ramadaan ko ñoroon ak weeru màggal daa salaam te daa ñëw rek nekk si koor gi ku na xam ne ne kenn talu kenn ku di sa bopp waaye daf maa woo ma ne Touba mu ne ma bàjje na waajal naa koor gi bu yàgg ma ne ko koor gi ren kenn talut kenn di mu ne ma man waajal naa ko ndax bëgguma ngeen xiif bëgguma ngeen mar bëgguma sañ fàllu xiif bëgguma mu mar loola nag ca la nekk ba ñu wari ma defe na day jeex mu continuer moom ba màggal daa salaam sëriñ si sax nee na ñoom ren ñu màggal ndax kenn ku na xam na ni réew mi demee ni ko gone yi waxee rek fi réew mi toll waaye moom lam defoon daal da koo yokk mooy loolu noonu xanaa baax jikko ju rafet nii jëmm ji rek nii la jikko ji mel amul benn changement ñun bañ ko xamee ba léegi nii lañ xam ci moom dañ koy ñaanal fan gudd ànd ak wér ak wér gi wér la di ko ñaanal lii mu am ci kër gi yàlla na sëñ borom teg loxo ndax yokk kër gi yokk goo xam ne ñëpp xam nañ ko dugal na njëkke yi ci biir bañ na tawat mu dugal jarbaat yi dugal surga yi xale yi di dem taw feex sax bu ñu xëyee fajar teel lay yow jox leen galaas bu fi ndekki suba desee mu jox leen ko bu fi desu dina leen ko dabe ji ñun daal liñ koy ñaanal rek daal xam naa daal mu daal fi mu ñu féete fi yaabu sambay féete woon sëñ Fallou Galass la rek fi la ñu foofu la féete sëñ Fallou moom nee na yaay la si sëñ Fallou waaye sax du soxnaam ndax ñeewante bi mu am ci moom sëñ Fallou moom dafa sant mënut a sax sant sëñ Cheikh na moom Baye Fallam la waaye sëñ Fallou moom da koo def rek doom ñami nag moom ba mu ko dalee préparé daaw rek ba mu eggee ba mu paree rek la commencé waat kees la jëloon teg ko ñu def ne da ciy jënd jees neer wala da ciy jënd wala da ciy jënd kër mu ne bis màggal daa salaam koy def ak koor gi waaw loolu yéen moom war ngeen cee xam dara sax yéen ñi nekk ci site boobu saa waaw loolu war de fi mu toll nii lu mu préparé woon la ba màggal daa salaam rek ba màggal daa salaam jàllee la daajoon kondaane bi mu defaat bu déwén ay mbokk mi ñu ngi leen di sant bu baax a baax rawatina Xadi Njaay magam ji nekk Dakar moom saa yu defee ngóor rek ba dafa ne daa war a taxaw daf ko naan defagoo dara feeg jëndala goo sëñ Fall oto rek defagoo dara ndax moom laa defal sama borom kër ñun dañoo defee ne da koy wax na ko yow li ngay def ci sëñ Fall ëpp na waaye da koy wax na ko yow defagoo dara bu taxaw bu geesu sax defagoo dara loolu la koy ñu ngi koy sant bu baax doomu bu jigéen maam tàkk ñu nekk bitim réew ak ñu nekk fii yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen day ñes ñoom ñu ne bés si doomi doomu ñoom ñëw nañ koy wax maa ami ñoom ñëpp ndax bis bi bis bi ñor ko lool moom daal sant nañ bu baax a baax sant moom mënut a paase sant képp ku mu bokkal nag kër gi sant nga ko rawatina Ndiaye si la muy aawam maam Fatou Gueye miy ñaareelam ñoom ñëpp ko sant ak njaboot gi moom itam sant na njaboot gi bu baax a baax baali mi nekk si kër ga xam ne mooy sunu mag nekk ak sëñ Fall ñu bokk ndey ak baay mu jàpp ami say ami jàpp ko def ko bàjjan moo gën a sant daa mënut a wax rek man ma koy waxal nag man seenub jaam rek laa waaye man lañ jox parole bi ma koy waxal jëf ji nag nekk lool bi nga ko jëbalee sëriñ bi leeral nañ ko ko. cant yi mu yónni yëpp sax moom mënuñu ko wax xanaa dañ ciy feeñal yéen rek nee daal lii mu def nii da koo xeeb lool lum xeeb la nee na nga dolli ko ñaan bu baax a baax a baax ba bu déwénee daal da lay yeewal ay nekk ci wanag bi ba noppi doog a nag a toggaat ci kër gee indi nee daal nga ñaanal ko baabakaram mais suñ boroom defal ko lu kawe njortam ñoom am foofa ak ñi am fii ñëpp. daal nee na yéen a jëm am ci yow moom da mun koo wax sax ci làmmiñ da koy toog rek di ko xalaat nee daaw bi mu defee reer yi ba mu noppee rek daal di tàmbaliwaat reer yi naa yi def ko kondaaneem ci koor gi sax la ko commencé am Tuubaa laa nekk waaye si koor gi la ma wax ma ko yore daa na ngaa xam bëgg bàyyi borom kër gi ndax bàyyi borom kër gi su weeru ramadaan ñu du am benn itte bu weeru koor mm. man de waajal naa weeru koor waajal màggal daa salaat ma ne ko ah màggal daa salaam duñ màggali mu ne waaye man li may def nit ñi taxul ma koy def sëñ bee tax ma koy def ndax suñu seex moom lu ma ci def rek moom dama koy xeeb te ñaan gi dafa mel ne daa yokk bu baax a baax ndax bu ma ko commencé daal yokk gi ma ci gis sax dafa yéem ma daf maa yéem waaw nee gën koo ñaanalaat yokk gi moom mu am egg fu kawe njortam ñaanalal ko mbokkam yi nekk Dakar it muy Soxna Xadi Njaay ma xam ne mooy magam dina Dakar ndax nee daal lu mu baax lu mu def rek danaan ko goo dara mu def ci sëñ Fall loolu mu def ko si yow danaan ko defagoo dara moo koy yokk doole di ko yokk fit fu mu toll nee nag lépp yow ci sa kàttan la ak ci sa barke nga dolli ko ñaanal ci sa barke maam guddi gi daal nga ñaanal ko ci lu man ren bu déwénee mënul ko ëppal réccu wut nag lan doon bokk ci sëñ Modou Rokhaya di sant nag yàlla bu baax julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sëñ Tuubaa Seexul Xadiim ñaan suñu fan lool te la fi ko sëñ Fàllu mi ndax taxawaay na taxawaayu bàyyi sax te mat na ko sëkk jooyuñu nday jooyuñu bàyyi ndax moom fàttewuñ ci leen kër gi nag la ko tàmbalee ci njaay mi ba ci moom mii fi ñëw barki démb rek matale na tuwaarkal yàqu fa dara day defar rek waaye yàqu dara da boolewut dara nag ak i wax matale na lépp tuwaarkal macha allah la muy jeex nag ca ëtt ba yàlla xam na ko yonent bi xam na ko ak sëñ Tuubaa bàyyi nañ koog moom ak boroom daaru salaam yàlla na ko fa may lu ñëpp teg di barkeb Serigne Touba sant nañ ko bu baax a baax a baax tubaarkàlla boolewul dara ak i wax tam mi ngi matale na lépp nag yàqu fa daraan nag ñu ngi koy ñaanal bëgg na la lool nag ñu ngi ko ñaanal bu baax Mbàkke lim mu am sama boroom teg ci loxo. Serigne Cheikh Anta Mbacke santaat na ko bu baax a baax gërëm ko ci taxawaay bi waaye daal di koy ñaanal. bi ne mi ngi lay nuyu di leen sant di leen gërëm di jël nuyoo boobu nga jël ko teeru ko ci soxna soxna Amy nee na ñu ngi koy sant ba di ko gërëm ndax lii nga teraanga ji ko defal tey teraangaam yi mi ngi koy fekk fu mu naan nekk mm. nee bu nekkee Touba sax dana ko togg indil ko ko Touba bu nekkee Sonatel dana ko def fu mu nekkee Tawfekh fu mu mën a nekk fekk na ko lii koor rek lépp da koy defal ay teraanga di ko andil mm. nee nag maam Seex Anta mi nga xam ne moo tax mu koy def mi ngi koy ñaanal ci barke maam Seex Anta ak guddi gii ngi jumal dëgmal si nga xam ne mën naa ne yoonu murid li mu am lu nekk ci bis bii la ko am mi ngi ko ñaanal ci daraje guddi googu lépp lu yaakaaram ci daaru salaam ak sëñ Fàllu yàlla bu yaakaar jooju tas ak ci Serigne Cheikh mi nee na daal mi ngi lay ñaanal tamit njaboot goo xam ne njaboot gu barkeel lay doon gu lislaame gu taalibe nekk taalibe Seexul Xaddim ñëpp dégg leen it ndax jëfu nga ko te yoonu murit moom jëf rek képp kepp la mm. képp ku jëf daañu la ajal mm. te jëf nga mm. nee na daal xolam set na ci yow bu baax a baax mi ngi la koy seeral di ko seeral sa ñi nga àndal ñëpp bokk yi nga àndal yëpp mu ngi leen di sant di leen gërëm xam naa li sëñ bi sax naa jot gën naa gudd dañoo mënewut wax moo tax ñu bëgg koo gàttal foofu rek jërëjëf ko wax wax ñu ñaan ci barke bis bi lu ngeen fas ci liggéey bi bu rafet bi eh, yàlla suñu borom defal leen ko barke sëriñ Tuubaa lii tam dana waxoon ne du màggal ngir wéyal ndigalul sëriñ Tuubaa sëñ Muntaxaa waaye Daaru Salaam ah sëñ Muntaxaa moo ko gën a xam daaru salaam Sëñ da koo taqaleeg teraanga ba tax bu ñu fi dajee faw teraanga teraanga feeñ fi kon nag teraanga ji yow mii nga bokk nga xam nga bokk nga ci ñi ko feeñal jërëjëf mooy maa ngi lay ñaanal baax njaboot gu barkeel yaa ak sa bokk yi nga àndal jërëjëf mbooleem kilifa yi nga xam ne teewoon nañ jotaay bi rafetlu nañ bu baax a baax taxawaayub soxna Amy Seye seede ci moom ay kàddu yu am solo ci Pastef gi nga xam ne mu ngi koy wane waaye ak yaatoom jëm ci mbooleem taalibe yi ak njaboot gi seen fàllu a sënate soxna soxna am sëy mu saadix ànd ak moom liggéeyal sëñ bu jot ndax nit ku nekk dina sagoo ci soxnaam ku nekk dina sagoo ci borom da koy sagal xam na si sëñ fàllu gën a sin génn génn bët la xam sëñ Cheikh ko xool lenn ndigal lay déglu mooy ndigalu sëñ Cheikh Anta benn bëgg-bëgg lay déglu bëgg-bëgg sëñ ngir leen rek mooy dàq bànneexu seen fan waaye xam na ni seen seexante a mu jël teraanga ak jëf ju toll ko seen seexante di sàkk ngën mu ñaanal ko yàgg ak seexante suñu fàggal si te bi mu koy liggéeyal yàlla ko kon nag seen seexante ne sant seen fàllu ak njabootu gépp waaye ku yokk nag xam ku wàññi xam ne soxna Aliou Seye nag dafa ñëw kër seen seex si bu yokk lépp wàññiwul dara seen si ànd nee na ñu koy a ba nga soxla Anta Ndiaye barke la yàlla na soxla Anta Ndiaye barke a si ak njaboot bi yëpp reen doy na jëfay lool yéen jëf sëriñ bi ko lool ci yéen yàlla sagal te wéral leen barke sëriñ Tuubaa